waaw yaay booy maa ngi lay fay. maa ngi nii rek maa ngi ci jaam bu baax. doomu nday sew kay. <laughs> waaw man moom euh, jaar naa Arcos Arco Dakar euh, ci pap tonton Pape Faye jaar naa troupe euh, géej Mamoulaan ci Aline Badara mais mën naa ne jamono ji moom maa ngi King Production mm. def naa fi deux ans. di liggéey ak sama yaay Bousso yow waaw <laughs> ndax yow moom ku ne xam na sama digganteeg yow waaw ma gis King Production liggéey bu rafet bi muy def fii doy ma nag boobu ba tey ma nekk fii di liggéey ak ñoom waaw maquillage moom jànguma ko damaa sob rek don la rek waaye nag yow yaa ma gën a ñemeloo waa King Production wóolu ma di ma jox seen kanam ma ciy foo ba xam nga affaire yi commencé doon dëgg daal non loolu du Thiès n'est-ce moom day naan café café rek la bëgg. waaw loolu problème léegi man dinaa jox benn business boo xamante ne nii buy naan café da ko siy def rek. waaw yomb na yombul yomb na ci benn côté mooy boo gisee ni rek xëy na liggéey la après boo ñibbee sa kër wala bu doon ci leneen amaana du la dal mais bu dee liggéey la ku nekk ak jikkoom léegi nag yow boo ñëwee da ngay wàccee sa bopp rek ñun ñëpp ñu nekk benn. ah Kumba kan nga ah, nag da fee dégg sa tur. yii bi ma siiw naan dafa booy. yow neen ni nga am ay niveauté lii mooy niveauté man bi ngeen nee tëll jaal mbaay laa la tegoon. ku jaal mbaay. yoo xamoo jaal mbaay moo fi woyoon bete bete. boobu moom munu boobu moom daf maa neex moom. boobu moom dama ko joué ba pare mu neex ma ndax si mu lim ma ci yàq lépp. Ah. Sénégal ñëpp samay noon moom ma sax ñu koy xool loolu. <laughs> di si ba ca boppam tëyeer ba lu ne laa ko ci yàq ma xëy nag suba ga dem may ko sama raq sama raq yi ne ma ah, parce que tisi bi semul xas na la ci nga bëgg ñu koo may noonu laa ko ma mbali tisi bi ba léegi xamatuma foofu ne ah mooy jour nag bi ñu tàggee na fi mbay jour boobu moom sama àdduna tukki woon na ci série bi <laughs> dem naa ba foog ko dëgg ah papa lan ndax Nafi mbay moom dafa doonoon koo xam ne ci ñun doon suñu cousine mais doon suñu yaay doon suñu mag ku ne gis na ni ni mu doon doxalee ci biir kër gi ñun ñëpp mu boole ñu uuf ku mel noonu nag boo ko ñàkkee wax dëgg yàlla nga xool ni bu doon dëggantaan la dëggantaan nga ñàkk ku mel noonu ah loolu moom yomb ñi ko doon seetaan sax bi na fi mbay deewee moom ku ne xam na ni série bi kenn buggatu ci dara. waa macha allah moom ñoom dañuy jàppale bu baax techniciens yi buñ defee bu baaxul ñu ne nii la xam nga di ñu jàppale ak yooyu yëpp suñu yaay yow moom sama yaay man duma duma wax ndax lépp yow la lépp yow la macha allah yaa nekk ci suñu ginnaaw nekk ci suñu kanam King Production ci côté bépp nag bépp ñun moom dañuy saaf nii rek xam nga di di kiiwaaleeg yooyu <laughs> ñu nag ñoom osé <laughs> di wax nag ah King Production mu ngi noonu damaa bëgg ngeen gën a abonné ngeen jàpp te xam ne ah am na ay surprise ay ma wax wala ma bàyyi ah, déedéet xoolal waa garaaw bàyyi ma noppi